tey nag damaa ñëwaat ci beneen koñ doomu yaraax xale yaraax yaakaaru yaraax fas yéene waxtaan ak moom ci lépp lu ko soxal nu mu def bu nekk mbër lan moo ko dugal ci làmb ak carrière fu mu toll nii ci làmb lan moo nekk ci bëtam koo mooy kan caatu yaraax dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu internet yi caat maa ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum ginnaaw ba ñu sant eh, yàlla julli ci yonent bi sant suñu wéyjur ñu ngi leen di gërëm yéen eh, équipe bu Leewtoo TV. Mm-hmm. di jërëm Ndeye vraiment di leen sant bu baax di di di di leen masawu aussi ci coono ji. waaw di wax ne soyez les bienvenus ci caatu yaraax. Mhm. jaajëf ginnaaw bañ doon nuyoo caat buñ bëggoon xam kan mooy caat kan mooy caat loo ñu mën wax. waaw caat de ndaw la rek loo xamee ne dafa nekk làmb tax ñu gën gën ko xam ndax bu buñ ne caatu yaraax. Mhm. xëy na yaraax tax ñu am caatu yaraax. Mhm. bu weesoo loolu tuur bi làmb ji moo ko moo ko yëg te sama tur xëy na dafa jiit dafa ma jiitu ci làmb ji. ndax donte bëri bu mais li ñu ràññee ci mbawat bi ak mbooloo mi ñu topp moo waral ne suñu tur yegg benn xam nga kii bi ci làmb mhm. ba tax ku naan caatu yaraax ba tax man man jëmm ji caatu yaraax sax xëy na bu dee yow doo ko xamee mhm. ndax doo mos a xam ne kii mooy caatu yaraax mhm. mais boo xoolee photo làmb da nga naan kii caatu yaraax waaye alors mu dee yow ci mbedd doo xam ne kii mooy caatu yaraax ndax li waral loolu mooy ñun dañoo doon ay Baay doon ay taalibe ooy suñu bopp tamit xam nga ndax nekk mbër rek taxul rëy taxul maanaam tool noo xamee ni foo dem wane sa bopp ñoo xam ne di a ngi nii loolay caatu yaraax ñoo caatu yaraax nga ne yow sa turum pot moo tax sa tur bi jiitu ci làmb lan moo la ci làmb waaw li ma dugal ci làmb moom xëy na dama dëkk yaraax dëkk gox boo xamee ni tey ñun suñu maam yi dañoo yàgg xam ci ci ci ci ci ci ci làmb ci mbapat ku xam doomu tefes su màggee faw mu bëri mënut a ñàkk ndax destin lay nekk ci moom. tànku ne lay demee géej. waaw mënut a ñàkk ñun duñu sol daal ci dëkk bi sax waxtuma la ak ñuy dem géej. Mhm. amul amul sol daal parce que dañoo wóolu suñu bopp nekk ñoo xam su ma nee wóolu suñu bopp nag du question ci beneen domaine mais nekk benn benn cadre de famille la daal maanaam nekk benn dëkkuwaay boo xam nii. Mhm. amuñu xaajoog seen ñëpp benn lañ. Mhm. ñëpp ay mbokk lañ kër goo dugg gisam mbokk kër goo dugg fa dugg ci beneen buntu kër génnaat dugg ci beneen buntu kër. muy mhm. dëkk waalo waalo ak lébu. Mhm. moo tax euh, amuñu fa xaaj ak seen daal. dëkk boobu moo ñu def mbër ñu tarbiyoo fa jàngee fa làmb nag nekk fa di bëreek suñuy morom mosuñu woon foog ne dinañ nekki mbëru arène. ndax foowukaay lañ ko defoon mais mu dem ba nekk loo xam ne mënu woon ñàkk ci ñun. ndaw ñu ngay ñu dem ci arène bi dem bëree. nga dugg ci làmb ñaata combat nga ñaata victoire ñaata défaite waaw am naa neuf victoire benn défaite. kan moo la njëkk a ki mbëri ma daan dama koy fàtte ndax Jason sama deuxième combat la ma daanoon. Mhm. waaw ci journée sëñ Modou Niang. Mhm. nox nga dundee sa première défaite. waaw dund naa ko dund métti parce que man xaw ma défaite. Mhm. même boobu sax daaw ma daanoo. ñi ma àndal dañ ma doon bëgg bëgg joo xamee ne ñoom jàpp nañ ni même mbër sax su ma doon bëree yow boo ma touché ku ñoom da ngay am problème. ak lu mu mën a demee parce que gars yi ñoom mooy loolu xam nga mbëggee la fort ci doomu aadama ba tax na làmb ba ma daanoo dafa mel ni maa daan ndax dama ñëw yaraax fekk pujom boo xam ne ñu def ngeen ni taxaw ci mbooloo mi mu mel ne loolu daf la yee ndax boobu ak léegi car mhm. macha allah dégg googu après sas la nekk quoi <laughs> jooy naa ko nag ndax guddi gi dama ko jooy parce xam rek mbër boo xamul defet moom mhm. man jàpp moon ne moment boobu laa doon daanu ci làmb mhm. defet bett ma trop nga dugg ci làmb ku ne làmb xam làmb ni mu méttee mhm. lan moo la gën a marqué ci sa carrière làmb waaw li ma gën a marke ci suma carrière mooy que man gox bi ma dëkk mhm. ñi ma euh, ñi ma ñi ma député woon ci ay làmb maanaam ñi nga moroom yi ñi ma doon àndal ñu waral nekk mbër nekkuñu mbër ndax yaraax man jamono ji may doog a débuté foofu di mbapat mm-hmm. daan fekk ñoo xamee ne man dama leen fawoon ci làmb ndax ñooñu laa yaakaaroon ñooy nekk mbër yi mm-hmm. ñu dem tey ba ba ba bañ ne caatu yaraax mbëru yaraax ba boo limee mbëru yaraax boo ne benn ne caatu yaraax boo ne musandooy mm-hmm. di nga wax caatu yaraax loolu marqué ma ma def benn trois ans ci làmb yàggul dara ma def ci euh, presque dix combats yi mu xaw ma marqué nag ndax euh, yenn saa yi damay waxtaan ak gars yi sax naan leen yéen comme yéen yéen daal loolu xaw na ma marqué trop parce que bu ñu toogee ba yaraax yenn saa yi bu ñu nee mbër wala soleil chaque jour observateur wala wala làmb di génne caatu yaraax daf may xaw a tuuti rek ndax ñi ma foogoon ñoo waroon nekk mbër yi dañoo découragé ci làmb ñiy tukki ñi nekk ci seen waar ñi nekk ci seen situation familiale ak loolu daal xoolal na fu mu ne nii ku ne yaraax rek mhm. caatu yaraax sa xel di dem ci moom ci mën bëreem am fitam leen la méritu làmb ñëpp xam nañ ko lan moo xam ne ne moom ngi regretté ci sa carrière suma carrière moom aw ma leen loo xamee ne maa ko ci regretté mhm. parce que mosuma jaar ci yoon boo xamee ne yoon bu bon la mhm. man juddu naa fa ma war a juddu bokk ci famille bu baax ñu jàngal ma alxuraan jàngal ma français ba macha allah intellectuel laa ci am naa ci ay diplôme mhm. xam nga maa ngi sama métier aussi tamit làmb nekk suma destin ma nekk ci kon suma carrière amul leen loo xamee ne maa ngi ko ciy regretté. Mhm. vraiment dugguma ci leneen loo xamee ne maa ngi regretté suma carrière daal. ci mhm. noonu nag ko wax làmb métier la liggéey la waaye dañoo ne dangay liggéey boole ko ak làmb à part làmb lan ngay def. waaw à part làmb euh, bëri naa lu may def ndax tey yaa ngi ma fekk ministère may liggéey li ko waral mooy euh, protection euh, kii rapproché international laay def. Mhm. ñun ñoo bokkoon ci ñu génn major ci formation bi ñu njëkkoon def. Mhm. Euh, le DG Souleymane Soumaré. Mhm. sagal ñu si gil ñu jël ñu ñuy liggéey. bu weesoo loolu euh, bari naa métier moo def ndax euh, doon naa def chauffeur. Mhm. doon naa yor gaal di dem géej. doon naa def métier bi aussi tamit électricien aussi. yow daal jàppoo ci làmb rek da jàpp ci làmb jàppale ci leneen foo mu woo daal mu wuyu la ci mu wuyu la ci. ñu ñëw sa dernier combat diggante ak nga xamante ne mooy Zal Bawal. Mhm. combat bu sax motul une minute ay 30 secondes la ñuy wax naka nga préparé combat boobu. waaw combat bi du ci Zal Bawal kese ndax boo xoolee sama combat avant Zal Bawal serpent ci 3 secondes laa ko daan daaw mhm. na sañ-sañ la ndax loolu sañ-sañ rek nga ko mën a tuddee mbër moo xam ne day ñëw appliqué sañ-sañ kese la. Mhm. ñenn ñi dañ koy teg feneen man gëm naa mystique am na ci làmb ñu jàpp ne mystique la ndax yow mbër balaa mooy xool moom ci suuf waaw xam nga man gëm naa mystique am na ci làmb dëgg la mhm. mais gis nga loo am am mystique te gëmoo sa bopp mënoo dem mhm. parce que mystique da lay mottali la amal fit mu doog laa jàppale mhm. léegi nag boo ñëwee taxaw ci géew gi li ñu jox appliqué doo ko mos a liggéey parce que man Zal Baol boo xoolee combat bi ba mu ñëwee li parce que nit ki aussi tamit boo indee sa gëm-gëm xëy yàlla dana la ci jàppale. Mhm. mooy que li ma ko waxoon mooy du ma taxaw sa kanam. di xoolante ak yow bu at bi suuf lee mhm. mhm. tamit dañoo déggoo dafa mel ni ndax laata at di maa ngi wër géew gi dégg euh, entraîneur am bi naan ko. bul ko xaar mu song la. ndax depuis ba euh, ba ñu tëjee suñu làmb ba ma demee arène nationale suñu première face to face. mu ngi naan ma mbëru cong nga da ngay taxaw boo cong yi dama lay mbott ma na ko comme yaa ngi sóoraale song yu baax na. ba mu ñëwee ma appliqué loolu nag ma réussir. ñi gis sa combat comme ni nga ko waxee sañ-sañ la sa combat yëpp day gaaw ba dañuy naan kii ka caat combat am soo ko xool bu baax doo gis jële bi lan moo waral loolu. waaw bëri na bëri na nga jàpp ne ay ceebu ginaar la da nga ñëw jaar sa kaw jàll wala sa gëm sa doole nga gëm wala mystique ñetti question la. ban waaw damaa wóolu sama doole rek xam ne xale laa damay liggéey. Mm-hmm. loolu moo waral sama combat jafe ba léegi. Mm-hmm. mbër bu nekk ñu ngi naan la caat yoo tax nga rasu xam nga dañuy ay xale nag nekk xale yu ndaw di xam nga nekk ci làmb di bëree man 2018 laa dugg làmb def ma ci 3 ans am 10 combats. Mm-hmm. macha allah yàlla may suturaal. Mm-hmm. yàlla na yokk la ñuy wax. Mm-hmm. te du wàññeeku mukk xam nga gars yi champion yi nag léegi lañu mën a bëreeg man ku ci delloo avance ci kanam di nga bëre di nga bëgg a bëreeg caatu yaraax. mu la. ku ci bëgg a teel a bëri caat yow daata ngay a gaaruwaar la wala dàqum ginaar la non gaaruwaar ak dàqum ginaar lépp laa ko mën tuddee man mbëri laay waxal waxuma ñeneen mhm. cest à bu promoteur seetee mbër mu naan non booy du ma bëri moom c'est parce que jàpp ne caat dalaa pour doole wala dalaa sañ-sañ est sa xel xam sama xel amul ko mu sàcc maa dégg ci weewu bëy ñu naan sa combat ak nga xam ne mooy Ada mi daan Tapha Mbeur taxaw man sax dénoncé wu ma ko man mosuma woo promoteur na ko jox ma Ada Fass parce que boo xoolee ci profilu làmb ci concurrence mm-hmm. catégorie sax xaw naa des ndax maa ko gën diis. da nga jàpp ne yow yaa ko nekk supérieur fu mu nekk nii maa ko mën fuuf dama ko mën fuuf Ada cent mille combats cent mille défaites la ci man. Ada mi daan Tapha Mbeur barki démb Ndiaye wala damaa ju. Tapha Mbeur nga may wax. Tapha Tapha Mbeur du mbër. Zal Bawol xam nga ma <laughs> ah, da ngaa xeeb Ada Fass. xanaa déggoo li boo ko fayoon un milliard du jël combat bi parce que damaa xam ne cent mille combats cent mille défaites. ci man yow yaa ko mais seen combat ñu ngi la amateur yi mu ngi seen combat war a neex. mais man li ma def ci lamb su ko def ci lamb. Mhm. adversaire yi ma daan moom daanu ci kenn. Mhm. moom diggante bu muy bëreeg léegi tegle na ci ñaari défaite yoo xam ne man neuf victoire successivement dama ko tegle di mhm. ma ci défaite ba nii. mais fu mu ne nii ku la da nga koy yóbbaale yaraax. non man boo ma joxee Ada moom dama koy sëlmoo. ah loolu moom amul sax wérante. bu ma la joxee Ada Fass soo koy def. xam nga tey su ma taxawee fii di waxam waxam dañ naan caatu yaraax mooy soxla Ada Fass. Mhm. man bu bu fekkee ci cadre làmb lañ ko teg. Mhm. Marley laa war a bëreel. bu dee ci cadre làmb wala wala wala caat bu booy bambara parce que jén kere laa toppoon suñu làmb neex mu topp Moussa Ndoye te Moussa Ndoye du moromam nee na du bëri man te gënuma prouvé mhm. problème on y mhm. mais xam naa ne comme kuy man maay laaj man may taxaw di laaj jën kere pour bëri ak moom wala kay ngi may wax Arafas mhm. ndax Arafas ñëw Arafas ma ko joxoon tey tey tey mu jënd yoxu cere li ci def ma jox la ko paas ci dem ñibbi <laughs> aywa na avance ñu ndax ñu joxuma ko. kon loolu leer na ci boppu ñëpp ku bëgg combat Ada Fass ak Thiat mu ngi nii Thiat pare na je pense que Ada Fass pare na ndax ci victoire la jógee fu mu nekk nii. Mhm. ñu ñëw ci làmb dimanche moom combat bu mag bu na am diggante Quench ak Double Moteur na nga gisee combat boobu. yaa mooy doo wax samay adversaire <laughs> ndeysaan moom fit bi yaatu rek. fit bi dafa yaatu yaa mooy doo wax sama adversaire mhm. bu dee Double Moteur ëpp mu ay victoire. Mhm. man tey moo koy si ku ci daan maa moom làmb laa. daal ñaari dimanche daal nga nga nga boole di xaar seen ñi jël ndam. bilaay bu fekkee logique gu làmb laa wax de logique gu làmb. Hmm. bu dee lu neex amateur yi moom mën nga wax caatu Yoro ak ki nga tudd sànq. doo tudd turam. non jaru ko. et eh, tuddoo turam Ada Fass. waaw léegi bu fekkee logique gu làmb. Hmm. da nga naan caatu Yoro. coin double moteur ku ci daan nga bëre ñoom loolooy làmb ji. man lu dis laay wër parce que boo léegi damay daan ci ay 2 secondes 3 secondes gars yi naan la lamb ji dafa gaaw yenn saa journaliste yi naan ñu may ñu caméra tuuti. Mhm. xam nga tamit nañ ko ralentir. waaw nañ ko mhm. ralentir suñu waakoon sax yéen fans yi dañ naan ma fayalal seen passe parce que seetaan ñu lamb ji <laughs> ba tey dama nekk di remboursé ay <laughs> a faral dimanche la. léegi nga gisee combat boobu. combat double moteur coins. Mhm. waaw boo xoolee boo xoolee lamb ji. ñoom ñaar ay ndaw lañ Quench mën na daan double moteur que double moteur mën na daan Quench mais double moteur na teey parce que Quench mbapatkat la boo jàppee ne duma moo koy daan tam yaa ngi nax su boobu kooku foog nga def ak moom cinquante cinquante bëreeg moom làmb naxtaan la mais du làmb jaayante doole loolu la analyse ci làmb ji muy noonu neen du ci seen dañuy adversaire lu ci mën a am lundi matin tey foog ma demaat ci ñaari mbir ñu lijjanti kaa bi kaatu caa lan moo si doon ñëw mu avant loolu sax ban message ngay lancé axlu làmb axlu làmb ma leen wax ne làmb fi mu ne nii dafa tëradi te dafa jaxasoo suñu bopp yi ndax boo xoolee espoir yi ñoo fi nekk promoteur yi nangootuñ tëgg benn booy ak benn paa boo waxee dañ naan la paa boobu mënu fi indi carte boo xoolee lamb espoir kon ñoom lañ bëgg mhm. parce que ñaan caar yaraax moroom lay bëreel mhm. man tey su ma bëggoon beneen mbër mag sax dañ naan noonoo kooku bu ñu laajoon cent franc mënuñu ko ci moom mhm. kon xam nañ ñun lañ yaakaar parce que boo demee lamb bi passé dimanche nii nii Tapha Mbeur Ada bi nga xam ne mhm. booy indi mbooloo mhm. amateur uy si nañ kon amateur yi maanaam espoir lañ bëgg kon nañ dëgg lamb ji mu neex laaju moo fi benn paan ak ñu booy bi daa bëgg lu yomb samay morom kese laa laaj lu leer kese lan ngay tàggatoo lu yow say fans waaw li may tàggatoo mooy saison bi lu mu bon bon war naa ci a bëri trois fois saison bi mën naa ci bëri trois andi mbooloo mi ñëw yëngal stade bi comme ni ma doon defee jàpp daan ci ay Thiès parce que dama sonn ci seconde yi. Mhm. dem ñibbi Yaraam nee moom xam mooy dañuy def ni gëmm rek xool. waaw ci ay parce que gars yi loolu lañ parce que nee yi ba mu def Thiès yi rek. <laughs> loolu moom dama fa teg sama loxo ba mu amaat combat ci nag ah am na komba bu mag bu nga xam te ne nii Tapha Tine Boy Niang a nga gis affiche boobu. waaw affiche boobu moom boo xoolee Tapha Tine Boy avantage Boy Niang la parce que champion lay bëreel Tapha boo xoolee moo gën a di si cadre làmb léegi nag làmb ji avantage Boy Niang la man ci li mu mën a wax mooy avantage Boy Niang la parce que man du ma far fenn lu tax mbër laa avantage la mooy que Boy Niang bu daanee Tapha fi mu ko yóbbu sori te Tapha pour mu ñëwaat ci làmb il faut mu daan Boy Niang mën a toogaat place VIP waaw léegi risque bi ci kan la nekk nga foog waaw risque bi mën naa wax ne ci Tapha la nekk ndax Boy Niang bu ko Tapha Tine daanee. Mhm. yàqulul dara Boy Niang. Boy Niang defet la jógee de. Boy Niang ci defet la jógee contre la dëgër. Mhm. mais yàqulu ko dara parce que Boy ku nekk xam na lamb nu demee. Mhm. kon lu ñuy dëggaat sax la wax parce bu ko promoteur dëggaatoon moog la dëgër tam dañ naan yoon la. parce que bi leerul woon. mais boo xoolee contre moog Tapha Tine. bu ko Boy Niang daanee. kon Moussa Ndoye am na droit laaj Tapha Tine waaw noonu la demee nag. Mhm. yoo xam nga nu mu demee sax. ponkal mu fi eh, daanoo xaw ma dara ma laa wax rek nga xam nga xaw ma dara. ponkal <laughs> mu bu ko daanee aal mu ko rek. ah <laughs> waaw. walaay walaay. Thiat dama laa bëgg na da am fit man man mbëru am fit da may jaaxal yow mii est-ce que ñu jox Mor Kang non bul tudd foofu. ah doo ko parce que man damaa def ay grand combat te boo yooyu. promoteur woo nañ ma di ma wax sama combat boo yooyu te promoteur yi nañ xool logique gu làmb man ba may toll ci bëri samay morom damaa bëri samay morom trois fois laa def spécial damaa bëri spécial ñu wax ma ma ne grand combat non gars yi ne spécial ma bëri waat ñu ma grand combat joo ne spécial te booy bee ñaari spécial kese la bëri mosul bëri grand combat te bëri naa ci kaw loolu noonu ñaari grand combat mm. daaw ak kon mu prouvé waat na prouvé waat boo dee bëri man rek dina bëri man hmm. waaw mais damaa xam ne kat yenn catégorie yi damaa di seen kaw nañ ma jox ci pongol yi lan ngay tàggatooyee waaw li may tàggatooyee mais maa leen di gërëm parce que yéenay dundal làmp tey yéen a tax ñu ñu xam hmm. tey ku hmm. a bëreel promoteur yi nga xam fi ñu taxaw man pare naa pour bëree pare naa pour mbër yëpp xam sax nekk fii di laaj yenn mbër yi bu yàggee doo bëri da ngay soof mbër bu taxaw pour laaj suma avance. Mhm. ñu fay ma lu ma ko jaral maanaam mbër bu taxaw pour bëre caatu yaraax. Mhm. waxtaan ak sumay staff waxtaan ak suma ménagère promoteur bi xool nu mu demee ma ñëw bëri ci. Mhm. ginnaaw loolu ñu ngi sant seen YouTube yi nag man seen internet yëpp. ndax tey euh, yaakaar naa Fatma Dia waroon nañ def émission tey. ma la. ndax euh, man sama kàddu laa am. ndax yéen yéen a ñu sigil. ba tax euh, ñu ñu xam. ndax boo ñëwee open press euh, Thiatou Yarakh du nekkul direct nekkul 2S TV da ngay ñëw ne xaaral ma dem Leewtoo tàppee ko mën a seetaan wala nga dem Lutte TV seetaan ko mhm. kon tey ñun mun naa ne kase lamb bu ñëwoon kase mbër bu ñëwoon sax war ngeen ci mën a am 1 pour mhm. kon ñu leen di sant bu baax di leen gërëm mhm. euh, di sant aussi tamit euh, suñu DG le directeur Souleymane Soumaré di sant suma chef euh, Fall. Dame Fall maa ngi koy sant bu baax aussi tamit moom moo ma yombalal émission bi. di sant waa ministère bi yëpp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant tam aussi euh, waa Yaraax. di sant monsieur le maire Babacar Mbengue ak politiciens yi nekk Yaraax yëpp vraiment di leen wax ne seen doom nag. relevé drapeau Yaraax kese moo ko ñor. jàppale leen ko. parce man topp ma benn politicien naan jàppale ma def sama poche. lamb bu ñëwee. ticket yi ngeen ñu jëndal ñu jox ko supporters yi. Mhm. man su ma demee représenté suma commune. Mhm. ci arène bi. Mhm. yéen da ngeen commune bi à l' assemblée nationale kon tey li ma leen ñaax mooy ngeen jënd ticket yi jënd kaar yi jënd t-shirt yi jox ko bi. nekkul man maay sol sama t-shirt du am sens. man li ma ñor mooy ma dem bëre daan ñëw sagal yaraax. loolu kese lay ñaan di sant aussi tamit monsieur le maire Moustapha Mbengue di ko wax bon courage. Euh, ci li ko Macky Sall Fall jox na ko département de Kër Massar ñu ngi lay sant ñu ñëpp ñu ngi sa ginnaaw di la sant di la gërëm bu baax parce que rek ñu jàppale saa su nekk mm-hmm. kon ñu ngi lay gërëm di gërëm ñëpp di sant fans yi aussi tamit di sant mbooloo mi may àndal yëpp di jàppale Thiatou Yarakh képp kuy bëggee Thiatou Yarakh rek maa ngi lay sant di la gërëm di sant suma gars yi nekk fi office tamit lu ci mel ni ñoom Boiro. mbër la santam lu jeex. waaw mënut a ñàkk parce que aussi tamit xam nga ça fait l'occasion ñu mën cee profité tuuti rek. Mhm. waaw di sant gars yi fi nekk yëpp ñoom euh, Tidiane Faye fi la nekk le professeur de Lamsar. maak moom ñooy liggéey fii ak Amandaw. Mhm. ñu ñëwandoo fii di sant suma gars yi fi nekk yëpp euh, waaw di leen sant leen gërëm daal maanaam. boo limee rek da ngay da ngay jum waaw sant naa sant naa <laughs> mi toog fii léegi ak Aziz. Hmm. maa leen gërëm ak gars yi fi nekk yëpp ak ñoom Père Bira ñoom Père Bala ak ñëpp daal sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp vraiment. Hmm. jaajëf. mu ngi noonu sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp waaye dama koy sant moom Thiatou Yarakh di ko gërëm di ko remercier bu baax a baax ci oyofam baaxam yaatoom. nekk nit ku baax sonal na ma nag waaye man tamit du ko may dara xam na ma 1 plus 1 la waaye du ma dara damay sant sama équipe bi. Modou Mané Mansour Oumulaay damay bëgg ci yéen waaye trio bi du mën a ñàq Ndeye Mbacke Diop la Mansour Fall moo Mané trio bi la seen Leewtoo seen Leewtoo seen Leewtoo la bon. acca ba beneen ñoog beneen champion. ñaar jéggi na su yoon wàcc na jël na tafaatin dóor na tafaatin a ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak Boy Niang ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention